maa ngi nuyu ñëpp ci nuyoog lislaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi sant yàlla ci toogaaleeg ay saalixiina te xaqiqatan pay bi du dañ di génnee ay saalixiin ndax Baay waxoon na ne fiha fiha rijalun zawquhum kal sama pays bii nii ay góor a fi yoo xam ne te da ko indi ci siixatu nakira wan nakiratu tufiidul umum ci ñi jàng usul xam ne ne buñ itlaaqee kalima ci nakira dafay labal dégg nga mbooloo ci matale kon mbooloo mu bari ay góor yu bari ci pays bii nii bàyyi ne na radiallahu anhu seen ak mos ci yàlla toll na ni mos ak yàlla mos ci yàlla ci kem bu yàlla jagleeloon ibnu arabi alxaatimi radiallahu anhu nga xam ne fu ko cheikh tidiane tuddee cheikhul akbar la ko tuddee kon nag toog ci place Medina bu tedd bi ak góor yi tedd yi nii dañ ciy sant yàlla bu baax ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq ñu ngi nuyu bu baax a baax euh, cheikh Mouhamadul Mamoun ñu ngi nuyu ruuxam waaye di ko nuyoo ci xalifaam cheikh Mouhamadou cheikh Ibrahim ibnu cheikh Mouhamadul Mamoun ak cheikh Muntasir ak mboolem seeni rakk waaye di tatagal bu baax di ziyaara seen kilifa yi nga xam ne ñoo ñëw teew taaral jotaay bi di seeni baay cheikh Mouhamadul Quraysh ibn cheikh Ibrahim cheikh Mouhamadul Shafi waaye buñ ne cheikh Mamoun boo ca yemoon rek di nga gis ca biir cheikh Mouhamadul Bachir ibn cheikh euh, cheikh Mouhamadul Zeynab dégg nga ak cheikh Sida Arabi nga xam ne ñoom duñu woon benn ñaar benn jëmmu duñu woon ñaari jëmmu waaye benn jëmmu leen woon ñu ngi leen bu baax a baax di leen ziyaara. nuyu seen jarbaat yi fi nekk ak seen rakk yi ak mbokk yi fi teew yëpp ak mboolem soppe yi fu ñu mën a bàyyeekoo ak euh, ñi nga xam ne nag ñoo amoon organisation yi ziyaara bii nii euh, di wax na rek ne bés bii nga xam ne ñu ngi dajee fii bés la ci bési yàlla yi ndax dañuy waxtaanee ci kenn ci ci kenn ci góor yàlla yi Cheikh Mamoun ibnu Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ku nekk xam ne ne ku yàlla mayoon la may yoo xam ne may yu rëy la waaye may mu ngi door dooree ci nga nekk doom doomi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu talabtukum wa antum fil ghaybi awliya allah sàkku naa leen ñaan naa leen fekk boobu ñëwagu leen ci àddina yéen samay njaboot yàlla wàcce leen ci àddina ngeen nekk ay wali yàlla tabaraka wa taala te loolu dafa fës ci njaboot gi lépp nga xam ne koo ci jaxasoog rek dinga nga gis ci moom ay jikko yoo xam ne danga xam ne du jikko yuñ for waaye jikko yoo xam ne wilaayam moo nekk ci gannaawam te sufiyanke yi wax ne ne képp koo xam ne wilaayam sax na war nañu ziyaara ko moo tax ziyaara Cheikh Mouhamadul Mamoun jublu jëm ci wali yàlla la waaye jublu ci koo xam ne wali yàlla la waaye waaris la ku donn Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu la loolu lu ñuy fàggu la ak lu ñuy amee la ci buntu xidma ak liggéeyal góorab yàlla ba mu gërëm la te yow loolu yàlla defal na ko ko doomi Cheikh Ibrahima la moom Cheikh Mouhamadul Mamoun ndax mu ngi juddu Euh, ci ni ko bàyyi taarixalee wulida muhammadul maamun leylat al ahad alsadisa wa ishrin min jamaadi al ba gàddaay amee junne ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett defe mu tombeek 17 juin ci la Cheikh Mouhamadul Mamoun gane dégg nga àddina guddi dimaas ci la génn ci ci la gane si àddina moom Cheikh Mouhamadoul Mamoun mu juddoo ci hôpital yi Kaolack bi nga xam ne wax ne ne mooy ku fa njëkk a juddoo maanaam hôpital bi bañ ko ubbee ki fa njëkk a juddu mooy Cheikh Mouhamadoul Mamoun loolu ishaara la ci ne dundam dina méngoog tatawur bu yaatu mooy évaluation bu mag a mag a mag ci wàll dégg nga àddina bàyyi ne wa ummuhu as-sayyida al mubaraka al barra mu ne ndeyam nag mooy sang bu barkeel ba al mubaraka taxaw fa al barra ku baax waaye tamit ku baaxee boroom këram as-sayyida Fat Diagne nga xam ne fu ñu ko tuddee tudd yaay ju baax tudd yaayu daara tudd taalibe tudd xaadima boo xam ne dafa jeexal léppam ci xidmaal sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu maam fa jaañ turam ci pay bii nii ànd na dégg nga de turi bàyyi di yëkkatiku ndax dafa sàkku loolu ci bunt ak taalibe la ko sàkkoo ndax mën ngaa nekk soxna rek waaye doo nekk taalibe waaye moom soxna la woon waaye tamit da nga da taalibe woon la woon da nga xaadima la euh, ba bàyyi moomu nga xam ne nag radiallahu anhu mooy waajuram bu tedd nga xam ne kenn du xamle kan mooy moo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ñëpp xam neen ko euh, xam ko xaqiqatan tamit mënta nekk kenn mënu koo jeexal waaye loo wax ci mbaax rek danga nga fekk ne su fekkee ne doj la bàyyi toog na ci njoloxtoon la mooy ca kaw doj ba radiallahu anhu kooku moo ko moo ko jur te ñaanoon na ñaanoon na yàlla may ko njaboot goo xam ne ñépp ay waliyu yàlla leen waaye tamit lim sémbu tamit taxawal ko ñaan na tamit njabootam gi euh, ñëw taxawaa taxawee dégg nga de sémbu googu noonu yëkkati ko alayhi salaatullahi summa salaamuhu wa taxfaza awlaadi wa tuxli bihim samki mu ne yow yàlla maa ngi julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam julli goo xam ne yàlla nga ma ci mayee sàmmal ma sama njaboot waaye tamit nga yëkkatiyee ci samay nga yëkkatee ci ñoom sama tabax yi nga tabax yi nga xam ne tabax naa ko te bàyyi lim tabax duhut ay xusuur duhut ay pale waaye jabrul kusuur yi mooy dafa jàng damm damm yi damm damm yan damm damm réere yàlla damm damm fàtte yàlla damm mu jublu jëm ci àddina tabaarak eh, ci ci àddina fàtte yàlla tabaaraka wa taala bàyyi loolu la jàng kon loolu la ñaan njaboot goo xam ne dañ ciy nekk te bu waxee awlaat nag jublu na ci doom yi gañoom yi waaye timit ak doom yi ruuxam yi ndax wax na ci benn leetar ne la ufarriqu bayna abna albaariin wa ahbaab albaariin man Cheikh Ibrahima mënuma duma teqali mukk nag doom yoo xam ne doom yu baax leen ak taalibe yoo xam ne taalibe yu baax leen taalibe bu baax sama doom la sama doom ju baax tamit dégg nga sama doom la kon waaye alhamdulilah doomam yëpp lu ñuy xëccoo ak la ñuy jiiroo ak ci lu ñuy rëj-rëjloo moom mooy nekk dégg nga de taalibe ñu am nag ñaari cër buy buy bu leen ñuy sedd sédd leen ci cëri doom waaye bu ñuy sedd ci taalibe tamit dégg nga de sédd leen ci kon Cheikh Mamoun moom mu nga xam ne nag ma ne juddu na ci kër ak wilaaya xaqiqatan ci baay ak ci maamam maam alaaji abdullahi xutbu bu mag ba nga xam ne baay danaan wax na lépp loo xam ne nekk na ci ñun ci xiw loolu xasanatun min xasanaati xaaji abdullahi ñes da nga da alkabir aljadd nga xam ne lépp lu baax rek moo ca jiitu woon moom mooy mam maam alaaji abdullahi ñes radiallahu anhu cheikh maamun juddu ci kër googu kër ak wilaaya kër ak mbaax kër ak sell waaye góor góorgóorlu ba nga xam ne tamit yàlla dimbale la ko génn ci usine boo xam ne la muy former ay wali yàlla la ndax bàyyi formateur la waaye ca la muy la muy former former nit mooy tàqale la ak sa bakkan bi nga xam ne moo lay soriloo yàlla tabaaraka wa taala bakkan bi nga xam ne amaaratun bi suu'i bakkan bi lay yóbbu nga gis lu dul yàlla tabaaraka wa taala loolu lay tàqaleek yow su ko defee nga àgg ci kamaalul muraqabatillahi matak fuuglu yàlla ci sa mbooleem axwaal yi kooku nag moom mooy waliyu yàlla dégg nga dee xaqan kon mu yaru ci pay boobu nga xam ne la ñuy lay tanaafus li ñu xëccooxee lan la ñuy xëccoo du xëccoowuñ àddina xëccoo wuñu alal waaye la ñuy xëccoo moom mooy mbaax ci la ñuy rawante moom mooy xam-xam ci lu ñuy rawante moom mooy mokkal alquran mu wëttu alquran gannaaw bu ko ay magam dégg nga da wëttoo xaaja abdullahi sayda umu kalzum mi nga xam ne moom la bokk ak nga de benn ndey muy jigéen joo xam ne wax leen ne moo njëkk mokkal ci Afrique gu xamuñ bàyyi ne na xamuma ci Afrique gu ñuul gi jigéen ju ko njëkk a mokkal dégg nga alxuraanu karim mu mokkal alxuraan mokkal gu rafet bàyyam mokkal ko waaye maamam mokkal ko maam mataaram mokkal ko mën nañ koo limal ba juróom juróomi maam yoo xam ne ñëpp ay xaafisul quran leen kon la nga xam ne mooy ndono ci alquran Cheikh Mamoun góorgóorlu na ba am ci ndono loolu cër boo xam ne cër bu law la jàng xam-xam li nga xam ne moom leen doon jàng ci réew mi lii bàyyi jàngal ko lii bàyyi amadu jàngal ko ko radiyallahu anhum mu teel biriye lool ràññeeku lool ci xam-xam teel am denga nga ak nubuux nga xam ne ku ko seet rek ku ko ku ne ko sëttu jàkkaarloog moom di nga xam ne maamun nii xal si naa nekk ëllëg da nga lu rëy rëy rëy ndax jikko yu bari ba muy xale la ko mel loo xooyee radiyallahu anhu <coughs> ba mu jàngee jàng lu bari ci pays bi fii ba yàlla nammee ci moom pour xëcc ko mu jaar jaaruwaayu góor yi ci la pays bi sànni ci dënnam nuuru jazbu rabbaani mbëggeel ak ishqu yëngal ko ngir rekk maamun gisatul dara bëggatul dara lu may xam boromam ndax loolu la gis nit ñi di jóge ko fu nekk ci àddina ñëw di ko sàkku si ci xadara bii nga xam ne loolu foo ko mën a ut doo ko fa am fii rek nga ko mën a amee falaa aarifun illa bi baabiya waaqifun asiru wa asqil qawma turran bi faydati amul kenn koo xam ne dina àgg ci kamaalul maarifati billahi xam yàlla xam turam ya xam ko ca melokaanam ya xam ko ca turam ci ci ci ci mbooleem axwaalam mi saxal loolu di ko dund ci anam bu nekk tëdd ak moom yeew ak moom lekk ak moom naan ak moom jaxasoo ak nit ñi te fekk jaxasoo ak ñoom loolu kenn mënu ko am lu may ci xadara bi nga ko la ko la nga ko mën a amee mu gis góor ñaa ngi te ci loolu Cheikh Mamoun bëggatul dara lu may dégg loolu waaye ànd ak loolu yëpp tamit euh, demut ci bàyyi radiallahu anhu na ko damaa bëgg a tarbiya comme li nga xamee ne ku bëgg a tarbiya da ngay ñëw ci sëriñ bi ne ko damaa bëgg a tarbiya mu ne la demal ba suba wala demal ba gannaaw suba di natt sa dëggu fu mu toll ak sa itte fu mu toll ak sa azima sa doggu fu mu toll ba bañ lay joxe danga nga dee euh, tarbiya waaye bàyyi moo kashfu xaal boobu Cheikh Maamu nekkee mu oolu ko mu ñëw mu bind benn not lem ko jox ko ko na ko demal ci Seydi Ali mi nga xam ne mooy baabul xadarati di xadimu cheikh yi muy Mawlana Seyd Ali Si radiallahu anhu boo demee nga jox ko waaye da nga ci gis jikko yoo xam ne jikko yu tedd ci mën a euh, te sir rek dégg nga da mag ndax lettre ba ba ko bàyyi joxe ubbiwu ko dégg nga da xoolu ko fi na nag moom gone goo fi jox lettre moom dina ko ubbi ñutu ko ba seet ba ba xam lan la buy téléphone boo ko dénkee dina fexe ba xam code ba hubbi ko seet lu luññitu lu luññitu la ca nekk lam ca mën a la wesaare ko tas ko dëkk loolu nag moom luñ jànga jara jàngat la ci ndaw loolu nga xam ne bañ ko joxee lettre ba ubbiwu ko dafa ñëw rek jox ko Seydi Ali sise Seydi liir la ca bàyyi bind na ko laxlal walad muhammadul mamoun qad badaa yashummu rawaihal irfaani fa laqinhu wa raqibhu wa salaam ibrahima abdullahi Niass mu ne dafa mel ni maamun gone gone gi la ko tuddee gone gi gone si la daal di maamun dafa mel ni mu ngi commencé di xentu xeti euh, bonne ko xet ak maarifatu billahi tabaraka wa taala na nga ko saa asgaaru tarbiyati te na nga ko na nga ko na nga ko fuuglu Seydaal ci la ko laaj na ko ndax lettre bi yow ubbi nga ko mu ne ko ubbi ma ko xaw ma lu ci nekk mu ne ko bàyyi nee na ma sóob la ci saa si la ko Seydaal sóob mu tarbiya ci ay ayyaam ba àgg ci yàlla ci néeg bàyyi la àggee ci yàlla sama yaay nettal na ma ko bàyyi di jël njar njar ak meew di leen jox dégg de ñuy naan radiallahu anhu euh, am fatxu boo xam ne fatxu bu rafet la euh, nga xam ne euh, Seydi Ali radiallahu anhu tarbiyaam mooy tarbiya baay tarbiyaam duutoon lu yomb du da ngay ñëw laaj ko tarbiya rek dégg nga de mu jox mu joxee la ko noonu Cheikh Ibrahim mu maam alaaji moom Zeynabu nettali na ma fekkee mu ne ba nga xamee ne bëgg naa tarbiya dafa ñëw ci bàyyi wax ko xam ne ne Seydi moom bu la sóobee mën naa am nga def fi 2 mois wala 3 mois mu ne bàyyi na ko demal ci Seydi mu ñëw ci euh, mu ñëw ci signal bi rek na ko bàyyi nee na nga tarbi ma waaye nee na na gaaw signal <laughs> na ko na ko demal ci moom na ko moom xamalu ma woon tarbiya bu gaaw nee na mu génn nag tag ci diggante bi man dem ci bàyyi mën ñëwaat ci Seydaal yi noonu ci la nekk ba ni mu ko soobee nee na def na ci tarbiyaam lu mat ñeenti weer radiyallahu anhu loolu lu tax ma ci taxaw tuuti mooy am na ci ñoo xam ne mbir mi nag dañ koo bëgg a defee noo xam ne tëddeewut noonu tarbiya ñett fan tey laay àgg tey laay àgg tey laay àgg xam nga ne ku lay tarbiya àggut da nga de xamut kon moo tax jëlee mbir yi fa nga xam ne foofu la nekkoon waaw di ko jëfee ci ni nga xam ne noonu la ko doon mag yi ñu doon jëfee lu lu am solo la ala kulli xaalin sëriñ Maamun nga tarbiya xam yàlla jaar fi góor yàlla yi dégg nga de jaaroon xam yàlla lool ràññee ko lool di ko dund lool imaam Cheikh nettali na ne mu ne Cheikh Mamoud wax na ko dina daan ñëw ci néeg Seydi Ali di waxtaan ak moom ci yàlla ba yi dafay wàcc ci lalam bi dégg nga de toog ci suuf ngir xaal kon nga xam Cheikh Mamoud loxo bu gudd bi nga xam ne amoon na ko ci maarifatu billaahi képp ku daan wéetoo ak moom di waxtaan ak moom ci yenn yi da koy gis ni nga xam ne noonu la doon fuugloo yàlla ci mbooleem anamam yi Cheikh Mamoun xataa buy séddale nag wala ay xarak yu lépp lu mu mën a séddale rek ci adat la koy teg ci tur yàlla la koy teg ay temps mun a latif ay temps da nga de ci jaamiul wahaabu wala da nga de ci adadul hamdi ci yooyu la doon dox ndax moom ci ishaaraat yooyu lay firi er bu nekk te amal sutuural kainaati fa innaha min almalai laala ilayka rasailu laqad qutta fiha law taamalta qattaha ala kulli cheyin maa qala allaha baatilu ishaaraat yi nga xam ne mooy ñëw ci péeb yàlla bi te man ci ishaara yooyu laa bokk diw ci ishaara boobu la bokk xar mi bay mi kàddu yi ngay dégg lépp Cheikh Mamoun heure bu nekk ci afaaq boobu ci la doon moo tax nga bëri lu nga ko daan gis mu séngéem te te bopp bi nii ma ngay xaatir ci yàlla tabaraka wa taala bokk ci góor yi ñi nga xam ne alladina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard amutoon benn xafla aarifu billahi kaamil la woon waaw aarifu billahi dégg nga de kaamil la woon te baayam dégg nga de seedeel na ko loolu gannaaw boo xamee ne nag àgg na ci yàlla tabaraka wa taala xam melokaan ya xam tur ya xam xalifa ba mu xam ne waajur wii nga xam ne moo ko jur ci zahir ñu naan maamun doomi bàyyi nakate bàyyi leneen la ci la ko bind leetar ne ko démb bàyyi laa la jàppee woon ñu naan ma doomi bàyyi taalibe yi di ma yëkkati di ma fóon di ma tonqam waaye tamit di ma di ma euh, jox àddiya waaye tey jii nii nag doom jooju maa ngi ñaan jaay ko jindee ko ak taalibe déedéet mënta perte doom gi parce que nasab lu am solo la loolu yàlla moo koy maye ab yonentu yàlla du ko nekk yónni mukk ndere mu nekk koo xam ne nasiib lay doon maanaam borom askan lay doon ci askan ya gën a tedd waaye askan dafa bari lu muy yiir nit walis mu mën a jëriñu te Cheikh Ibrahima la ko maam Abdou Niang waxoon tuddee ko naful bilaadi xawsul ibaadi naful bilaadi kuy xettali mbindeef yi waaye di taw ak njëriñ loo xam ne ñeel la mboolem mbindeef yi te foofu nag moom soo amul mbëggeel soo gisee nag mooy sa baay kese nga yem ca su boobaa lam indi ci lu baax doo ca jëriñu maanaam da mën ngaa séddu ci wàll ak da nga doom waaye nag cëri mag ñi nag moom doo ca doo doo ca seddu mukk moo tax nag mu jaay loolu jël dundam bi kulluhu wa kulliyatuhu mu jaay ko ci xidmaal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mbëgg bëgg ko mbëggeel goo xam ne mbëggeel gu fës la ndax Baay wax na ne wa man yuhibbuni wa man yaraani fi jannatil xuldi bila buhtaani ku ma bëgg dégg te gis ma yaa ngi ci aljana ci lu dul benn benn benn ak nar mbëggeel mbëggeel dafay waral ak topp da nga gis sax koo xam ne bu déggee wax ji dana ko yóbbu foo xam ne wax ji wax ji ñàkkat di wax xam waxi ni sufiyanke yi moom moo tax waaye bàyyi kay ku ko bëgg da nekk ci lam nekkoon te lenn lu bàyyi nekkoon boo ci nekkee rek am nga falaaxul fi dunia wala axira koo xam ne dundam bi amul benn laxza boo xam ne joxu ko yàlla tabaaraka wa kon loo ko ca roy rek di nga ci amee ngërmaane yàlla te bu amee ngërmaane yàlla yaa ngi ci aljana loolu dégg-dégg la boo xam ne bu yomba dégg la waaye Cheikh Mamoun bëgg bàyyi mbëggeel gu wér jeex ci moom comme ni bàyyi jeexee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdu fanin laysa fihi baqiyatun waaw jaam bii di Ibrahima dafa jeex ci yonent bi amut benn ndesit dinay wax Cheikh Ibrahima toujours na ko baqaayaa yi nag moom moo moom moo moo sonal yu bëri jeex ba pare am loo desal waaw am am am loo desal gis sa bopp ay aywa bëgg sa sa cëri bopp loolu yëpp jeex jeexagoo da ngaa am lenn lu jeex ci yow waaye sa lépp jeexut waaye bàyyi boo mu waxee ne wala lal abdou fanil xam nga yow mën ngaa baay bu waxee ne jaam bii ni jeex na man ngaa wax rek ne loolu foofu la yem waaye mu ne walaysa fii baqiyatun amul lenn lu des ci moom lu may rek lépp jeex na ci yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ibrahima nag Cheikh Cheikh Maamoun noonu la jeexee ci Mawlana Cheikh Ibrahima te Baay wax na ne man laa lahu fanaa fii naa laa yablughil munaa da nga def koo xam ne jeexuloo ci man Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu doo am sa mébét sa càkkutéef da nga ci man waaw kon rib an shuhudi an shuhudi wujudin li tablughil munaa fii naa na nga jeexal yëg gi nga xam ne yaa ngi koy seedu la yow ku am nga jeex ko ci man ci ngay mën a amee sa mébét ak sa muraad da nga ci man Cheikh Mamoun nag jeex ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu loolu alqaasi wa daani seedeel na ko loolu ku jege ak ku sori lépp xam nga ne Mamoun moom danaa wax ne Mamoun da nga da amut Mamoun jaay na boppam jaay na njabootam jaay na alalam fi sabili xidmati Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moo tax ba mu ko waxee duur rek ci làmmiñ la ko waxee Cheikh Mamoun euh, boo xamee boo ko xamee benn seconde rek di nga xam ni mu bëggee bàyyi buñ toogee ci mbooloo buñ ne Cheikh Ibrahima bu ko xale waxee sax mun déglu leen kooku ñoom moom bés xam leen loolu waaw ay temps mu mu nit ñu koy waxtaanal ci bàyyi ana Sidi Arab yow moom da mën a takk loo fàttaliku ci lii axbaari Cheikh Ibrahima rek moo ko neexoon moom Mawlana Cheikh Mamoun Niass radiallahu anhu mbëggeel gi bëgg bàyyi du mbëggeeli doom ci ci ci ci bàyyam waaye mbëggeel ak taalibe da nga ne ci ci ci ci bàyyam mu xidmaal Mawlana Cheikh Ibrahima jël itteem yëpp jox ko jox ko jox ko bàyyi loolu da nga koy gis si benn lettre lettre ba ko bàyyi bindoon ca Qahira xam na ne Cheikh Mamoun njàngam meek jëmmi boppam yëpp mën na koo sacrifice ngir xidmaal Mawlana Cheikh Ibrahima bàyyi bind ko. leetar na ko wala di Seydi Maamoun abasu ilaykum bi tahaani bi shatta munasabat maa ngi lay yónnee ay ndokkeel ci mbir yu bëri najaaxukum at adme nga ndax at boobu noonu danga nga at adme na bokkoon ci di dix premières yi ak ramadan weeru koor bi waaye wa sixati ak sama sama sama weer xam na ne Cheikh Maamoun itteem lépp mu ko defoon ci Baye radiyallahu anhu jamono joo xamee ne yëgoon na ne Mawlana Cheikh Ibrahima mu ngi mu ngi mu ngi feebar mu na ko faqat chefaani chefi wa afaani yàlla mi nga xam ne mooy saafara yàlla saafara na saafaral na ma may na ma jaamu walillahi alhamdu mu ne wa tajidu fii tayyihi awraaqan waqaatu ala kulli waxidatin minha mu ne di nga fekk ci ron enveloppe yi ay ay kayit yoo xam ne muy ay kayit en yoo xam ne lépp signé naa ko man Cheikh Ibrahima li tanuuba an nii fil munasabaat kama taraw na mboolem nag programme boo xam ne war naa cee teew muy congrès muy buur bu ñu war a ndokkeel wala président arabe bu ñu war a ndokkeel wala xew-xewi lislaam nag ma ca uutu fa mu mamunun ndax yow kuñ hóolu nga yow Cheikh Mahmadul Mamoun lettre yooyu nag xam nga tey gone yi duñ leen teel a jox tafwid boobu noonu am na gone yoo xam ne tey boo boo boo na ko lettre yaa ngi nii bindal président ah passeport diplomatique xaalis nangam nangam ci boppam rek ci lay nekk waaye lépp fa anta maamunun ndax moom maamun la parce que maamun amutoon maamun taalibe la maamun ku jeex ci sëriñam la maamun dégg nga taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim Israël la bàyyi teg ko ci ne ko wala tashghalaka xidmati ani dirasa maa ngi lay dénk nag ne gis naa ni nga xëree nag ci xidmaal ma loolu rek ngay loolu rek moom mooy sa dund mooy sa bëgg-bëgg ci moom ngay nelawee soxlaal wëlis nga jàng sa njàng mi rek na nga xam ne ci xidmaal la bokk ci xidmaal ma la bokk su ko bàyyi waxutoon lii sax ba maamu sëñ maamu mënoon naa dagg njàngam mi faalewul loolu sax moom na bàyyi gërëm rek waaw bu bàyyi gërëmee rek moom moom moom baax na bàyyi bàyyi na ko nag sa njàng mii moom daf maa itteel waaye bul ko dagg tegal ko ca nag bichaara bu rëy boo xam ne na ko euh, fa lii fii ka amalun azimun wallahi man Cheikh ma am naa ci yow euh, yaakaar boo xam ne yaakaar bu rëy la yow maamun xam Cheikh Ibrahima mu la yaakaar bu rëy rëy rëy am naa ko ci yow kon moo tax maamun dara mante feeñ lu may lu rëy lay doon dara mante feeñ ci moom lu may lu màgg lay doon ay yëngatoom yëpp dafay màgg ndax Cheikh Ibrahima moo ko waxoon na ko fa lii fii ka amalun azimun wa mustaqbalun zahirun te sa ak avenir boo xam ne avenir bu mel ni kii di fleur boo xam ne ci digg nawet la nekk na muy rafetee na muy taaroo loolu laa la yaakaaral yow Cheikh Mouhamadul Mamoun Niass radiallahu anhu kon loolu moo lay wan xaadim la woon te ci buntu xidma ci lay taalibe di amee lam bëgg man xaddamanaa naa nga de xaddam naahu waaw képp koo xam ne xidmaal nañu rek ñu jiital la kon man xaddama xuddima koo xam ne xidmaal nga rek dinañ la jiital danga nekk sang moo tax liggéey boobu nga xam ne ci la nekkoon di liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima daa iman di ut lu koy luy yokk bàyyi waxtu wu nekk maam Bass mii nettali na ma ca seen xaaxira ba na métti woon keroog ma ma mayee teraangaay ñëw ca daara ja daaru miraaya ma ko ciy gërëm bu baax a baax ñaanal ko yàlla yàlla may ko wér mu ne ñëpp dañoo dem vacances moom ak sëñ maam rek ñoo fa desoon boobu nag jamono ngi jafe-jafe goo xam ne la fa nekk danga nga de loo xam ne daanaka benn repas rek lañ ciy mën a lekk waaw lu ci des ñu koy xond xond ndax dëkk du dëkk boo xam ne comme Sénégal la kër gu la neex rek nga dugg lekk waaw doo fi sonn ci wàll lekk mu ne waaye ba nga xamee ne vacance bi euh, dem na tuuti Cheikh Maama mu ngi amoon benn billet dem seeti xam nu ngeen ko doon waxoon ci jamono jooju ñun xale yi sax xamatuñ loolu mu fexe ba am ci euh, man cee tukki dem Beyrouth yoonam boobu noonu ci la demee woon Beyrouth jógee fa dem Abu Dhabi fexe ba jis dégg nga de Cheikh Zayed ba mu gisee Cheikh Zayed ndax soxlaam la fa wax déedéet waxu fa soxla waxu fa ne damaa bëgg nangam wala damaa bëgg nangam wala damaa bëgg nangam waaye daf na ko benn soxla laa am sama bàyyi xalifa rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam liggéey lislaam liggéeykati lislaam bu rëy la yooyu tamit gis naa la ne ku bëgg lislaam nga bëggoon naa ngeen am alaaka nga invité ko mu ñëw fii loolu moo waraloon invitation bu mag bi nga xam ne defaloon nañ ko bàyyi muy visite officielle bi nga xam ne ñëw na ko dégg nga da Abu Dhabi ànd ak Cheikh Mahmoudul Mamoun radiallahu anhu ah kii dafa da lim am daf ko daf ko ñaxe waaw li ñuy wax ne daf ko ñafe wut ne dama nekk doomi diw rek moo ma ko may lépp daf ko ut mbaax rek mbaax lépp daf ko ut moom Mawlana Cheikh Cheikh Mamoun Niass radiallahu anhu bu ko defee nag euh, xidma googu. dañuy wax ne ndab lam def rek moo cay seebe moom nun rek la war a mën a mel ndax wax naa sànq ne ndeyam da nga def la woon muy doom yoo xam ne doomi ñaan la ndax waa juróom bu jigéen dafa yara daloon fu mu amee doom bu góor rek daanaka dañuy dafay faatu lim suul ci doom bari na moom maam Fat Jaañ waaye wax na ne Cheikh Mamoun mii baay ba ba ba ba ko ndeyam ëmbee bàyyi dafa dajale mag ñi ñu warlu da nga de ak dundam ak barkeem ak wilaayaam kon doomi ñaan la moom Cheikh Mamoun waaye tamit <clears throat> nga ñëw sa ndey nekk da xaadima teel a gën àddina ci boobu yaa ngi am fukki ak benn sa mag ju baax di suñ maam Seyda Xadi Xadi Faati Ñas nga xam ne xisaal yi nekkoon ci maam Faj Jaañ ci xidma mu ngi woon ci moom yar la ci loolu waaye nga fekk tamit ñu laa wax ne la sa nijaaya ngi alaaji Babou jaañ bokk ci ñaar ñeent fukki yi nga xam ne ñoo njëkk àgg ci yàlla tabaaraka wa taala bokkoon ci ñuy tuddal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xasaayid ya Mawlana Cheikh Ibrahima maam maam maam maam min awalihi ila axirihi gis maa ngi ko maa ko ma maa ngi ko yore maam faj eh, ma maalaaji baabu jaañ ci xaadimi Mawlana Cheikh Ibrahima yi la bokkoon maamam bi jur yaayam wax naa ko fi ba sonn waaye waxtaan wi di ko tikraar am na solo ndax boo ñëwee ci alxuraan di nga fekk xisaay yonent yàlla Muusa ak yeneen yonent yi yàlla di ko baamu ci saar yu bëree bëree bëri ngir mu mën a sax dégg nga ci ci ci xel yi maamam jooju di maam Fatim Kontey waa jule xaar la euh, ci taalibe yi la bokkoon ci njëlbeen ak faydu bi bokkoon na ci ñu tarbiya maam asu di yaay sëñ Abdou Karim Ñang nekk rakki maam Faj Jaañ moo ma ko nettali nee na yaayam ba si gàmmu la génn àddina ca kóosi ca gàmmu yi bàyyi njëkk a def ca kóosi dafa ñëw indi lam daan indi ndax bokk na ci ñi daan njëkk indil bàyyi béy ci jamono jooju ñu koy gàmmoo ak cereeg yu demee noonu te bu ñëwaan li muy indil maam fàjjaañ moom lay indil maam asta sama yaay nee na loolu moom yaa asta moo ko ko dégg na nettali mu ñëw majzu bi seen tudd yàlla gañ doon tudd yàlla di zikkar xaal boobu moo ko jàpp mu génn àddina Cheikh Maamu nettali nañu ci Marok ne bàyyi wax na ko ne sa xabru maam jooju am na jamono ci Kossy bu guddi jotee dañ koy gis muy tàkk leer nañ mu la ko sa maam jooju dégg de ku baax la woon ku ma gërëm la woon sa wax na ne mooy naka de nagi gàmb yu may joxe yépp maa ngi ko jëlee ci barkeeg dégg nga de xidma googu nga xam ne sama maam dégg nga de xidmal na ko kon ay baax baaxi maam doom mën na koo donn moo tax mu donn xidma ci maamam yooyu Euh, xidmaal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ba Cheikh Ibrahima dégg nga de gërëm ko yàlla may ko cër nag bi nga xam ne moom la ñëpp di sàkku mooy am wiraasa nekk saalixu nekk waliyu Cheikh Mamoun waliyu waliyun saalix la ndax dimension bu nekk mën nga cee waxtaanee ci Cheikh Mamoun bu fekkee ne ci wàll politique la politiciens yi ñoo gën a xam usra politique bi mu ngi fii ñi nga xam ne moo leen defar moo leen yar dégg nga ci politique te euh, dama daan wax toujours ba Cheikh bàyyi mii na ko war ngeen a def war ngeen a def benn journée boo xam ne wala ay journée yoo xam ne Cheikh Mamoun dégg nga ak nam doon politique pour mën a jàngale madrasatu Cheikh Ibrahima ci biir politique ndax moom ba muy politique bàyyi moo ko jox ndigal dégg ci politique. mbokkam yi nga xam ne àndoon na nag ñoom ci politique ñu ngi fi Baye si mii politicien la sax dem na ci meeting yi wax ba sonn. waaye waxam mënoo cee dégg luy déranger lépp luy indi développement la ak wax joo xam ne wax ju rafet la Seydou Khouraychi mii dégg nga xafisahullah moom it dégg nga politicien la ci Cheikh Mamoun la daan ànd ak dégg nga ci politique waaye politique am lépp loo ci dégg rek waxi njëriñ la waxi xam-xam la doo ci dégg dégg nga de safaan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon madrasa Cheikh Ibrahima ci politique nga xam ne Cheikh Mamoun moo ko incarné loolu war nañ cee def ay waxtaan ndax jamono soxla na ko pour ñu mën a gën a tàggat ndaw yi ci naka la ñuy dégg nga de ak naka ngay comporter booy sàkku dara doo ci xaabaabal doo ci xaste doo ci euh, oote violence waaye na nga wax wax joo xam ne wax juy jëriñ la buy convaincre la bu ko ñu ñi gëmee topp la bu ko ñu ñi gëmut dégg seet leneen moo tax nag waaye tey Cheikh Mamoun que wali yàlla laay wax wali yàlla bu bu mat la lan wilaaya lan mooy cosaan li bàyyi nee na waalamu anna al wilaaya hiya al maarifa alxaasa billah mu ne wilaayatu mooy nga xam yàlla xam yàlla goo xam ne la koy jiitu mooy nga am fanaawu ci yàlla tabaraka wa taala waaye tamit am baqaau billahi tabaraka wa taala wa fahma kalaamillahi wa rasulihi fahma zawqin wa xaalin yatajaddadu maa kulli nafasin wa fikratin mu ne tamit nga am dégg-dégg ci aaya alquran yi alquranu am ay dégg-dégg ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne dafay beese kem ni ngay sa nokk gi ni muy beesee te lii may wax nii képp koo xam ne yaa ngi daan toog ak Cheikh Mamoun di ngay gis naka lay xuusee ci butuunul aaya ak nukkat yi nga xam ne dina ko ci daan joxe mooy ay njëriñi maarifa yi nga xam ne dina ko daan joxe ci xadis yonent yi sallallahu alayhi wa sallam wala ci dégg nga de ay ay ay alquran yi bàyyi nag mu ne wa dalika huwa al kashfu nuuraani loolu moom mooy kashf te kashfu goo xam ne kashfu ak leer la fa lay tàmbalee ndax kashfu ñaar la kashfu nuuraani ak kashfu zulmaani kashfu bu mag bi mooy sa xijaab uññeeku ci péebu yàlla bi dëgg-dëgg dégg nga da uññeeku waaye kashfu zulmaani loolu dafay aju ci dégg nga da kawnu bi nga xam ne majaaz la duwut xaqiqa yàlla di la fi xamal ay mbir loolu kashfun dégg nga da zulmaani la mu ne waaye wal aaxaru nga xam ne lañ namm la ma la ma namm ci wax ji mooy al kashfu nuraani euh, moom nag moom natiijatu al maarifa mooy natiijaam résultat moom mooy nga xàmmee yàlla tabaraka wa taala wa faidatuhu taalluqul qalbi billah njëriñam mooy sa xol bi aju ci yàlla bi rafdi ma siwaahu nga sànni lépp loo xam ne du yàlla tabaraka wa taala daa iman maanaam doo am xafla amul lenn loo xam ne dina nekk sa xijaab loo gis rek loola doo ko jëmmal waaye dafay nekk escalier boo xam ne daf lay yéegal ci nekk gi nga xam ne mooy nekk ak abadi mooy nekk ak xaqiqi te moom mooy wujudullahi tabaraka wa taala mu ne nag daakiran lillahi fi kulli a fi kulli ngay tudd yàlla ci sa mbooleem xaali lisaanan wa ruuxan wa sirran ngay tudd yàlla ci sa làmmin tudd yàlla ci sa ruuxu tudd yàlla ci sa ci ci sa sirru la arifu billaahi ba waxoon ne zakartuka laa anni nasiituka lamxatan wa aysaru maa fi zikri zikru lisaani yow borom bi maa ngi lay tudd waaye duur na dama laa fàtte waaye li gën a néew ci li ma lay tuddee élément bi gën a faible ci li ma lay tuddee moom mooy làmmiñ bi waaye sama xolan lay tudd sama ruuxu mu ngi lay danga tudd mooy xol boo xam ne ak xel moo xam ne ak lépp loo xam ne ma nga aju ci yàlla tabaraka wa taala ndax yàlla wax ne ana jëli su man zakari nii maa ngi toogaale ki nga xam ne moom la moom moom moo may tudd kon loolu fa la mooy asaasul wilaayati asaasul wilaayati foofu lay tàmbalee waaye nag nga war boo ko amee ba pare nag soo doxut soo ko jëmmalut soo ko dëggu dëggalut ci sa mbooleem xaali su boobaa dina fay il faut nag essence bi koy yokku mooy essence ak mahabbatullahi te mahabbatullahi du feeñ mukk lu may nga bëgg da nga de xalifaam te yàlla mayoon na ko mu dund ak xalifa yàlla bu mag ba ki nga xam ne mooy saaqil qawmi moolaana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu moo tax mu xidmaal ko saxal danga nga xam-xam boobu ci moom saxal martaba boobu ci moom ba mu mujj a nekk maqaama boo xam ne maqaama bu kawe la ci moom moo tax Cheikh Mamoun wali yàlla dégg nga de bu mat la wali wilaaya nag amul mandarga waaye bu fekkee ne am na mandarga mooy ñii tudd yàlla te duñ ko fàtte mukk waaye ñi nga xam ne tamit dañoo am axlaaqu rabbaani jikko yoo xam ne jikkooy yu bàyyeekoo yu gongeekoo ci péeb yàlla bi Cheikh Mamoun boo ko gisee da ngay mën ngaa wax ne euh, jikko bu doon dox ci jikko ju baax ju doon dox ci kaw suuf la mboolem jikko yu baax rek mën nga koo nemmeeku ci moom nga xam ne kii am na kamaalul wiraasa dégg nga de ci baayam ndax baay lu mu nettali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko rek baay jikko roy na ko ba jéem a jikko jikkoo loolu waaw ndax mag ñi li ñuy wax mooy la Cheikh Tidiane la Seyd Al Harazim wax ne sahaaba saalixiin yi dañuy wax ne la na uzaaximanna ashaaba nabi sallallahu alayhi wa sallam xata li yaalamu annahum qad taraku rijalan baadahum dinaa rëj rëjloo ak saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ xam ne ñoom bàyyi neen fi ay góor danga nga seen gannaaw kon fexee rëj rëjloo ñoom ci jikko yu tedd ak ci mbaax ak ci bëgg yàlla tabaraka wa taala loolu mooy euh, mooy mooy càkkuteef bu kawe ba Cheikh Mamoun radiallahu anhu yàlla mayoon na ko ay jikko yoo xam ne jikko yu tedd la axlaaqul muhammad yi nga xam ne moom la ci la donnee ci bàyyam mi nga xam ne dafa jeexoon sëriñam mi nga xam ne dafa jeexoon ci yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kenn kenn mënu koo dab ci bëgg yonent bi ak ci xam yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit ak jikko jikko yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Mamoun yàlla mayoon na ko jikko joo tudd ci moom rek da nga gis ci moom mu nekk koo xam ne roy na ci bàyyi bu fekkee ci bëgg mbokk la bàyyi radiyallahu anhu kenn gënu ko woon a bëgg mbokk sama maam alaaji mu ndaw se sama nijaay alaaji xaas as ñes daf ko laaj na ko waaw kii ñeseen moom wala njolofeen umuman kan moo ci gën a bëgg mbokk mu ne ko sama baay alhaaji ibrahima ñes ku ci gën a tabe sama baay alhaaji ibrahima ñes ñaar yooyu yëpp moo ko moom moo moo ci rawoon ñëpp kon nga ji Cheikh Mamoud ni mu bëggee dégg nga da mbokk ci lewet Cheikh Boucar mu koy wax sànq kenn gëntoon na lewet Cheikh Mamoud waaw du gëdd nit du yuuxu nit du toroxal doomi aadama man de mosuma koo gis jamono yi ñu nekkee xale sax ñaa maag sama gaa yi Cheikh bàyyi yi bu amee loo def loo xam ne kii wut sa nopp bi rek lay xëcc nag yow doo bàyyi loolu nii rek la lay def waaw xale sax du ko dóor radiyallahu anhu te loolu jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yonent bi mas ta yëkkati loxoom dégg nga dóor jigéen wala dóor xale waaw loolu Cheikh Mamoun jikko jooju mu ngi ko amee woon Cheikh Mamoun ci Euh, am yërmaane ci ci ci ci jaamu yàlla yi nga xam ne loolu yëpp ci xisaalu wali yàlla la ndax am na loo xam ne nit ñi dañuy foog dafa terre à nii rek déedéet terre à loolu da ngay xam ne lii may ak yàlla la waaw ku nekk xam na ku la man fa ko du nangu loolu la waaja waxoon ku nekk xam na ku la man fa du nangu waaye dafa am ay jikko yoo xam ne nit ku nekk ci moom dangay xam ne kii wiraasa dafa nekk ci moom wilaaya dafa nekk ci moom moo tax mu attan ko la nekkoon ci yonent yi moom la yàlla dégg nga de euh, ndëxañ ci xolam bi moo tax jëmam ji àttan lu dégg lu nekk mu nekk koo xam ne ku mën a muñ la Cheikh Mamoun muñaakoon la xiif du ko déranger mukk waaw lu mu fekk ca kër ga rek loolu lay lekk waaw te loolu boo ko gisee ci bàyyi boo ko jeexee ci bàyyi gis ko ci ndax ca yonent bi la ko dégg nga doon neexoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina daan toog ñaari weer yoo xam ne euh, cin du tàgg tàkk këram moom mooy ne duñ fa togg yàpp euh, waaye lu mu doon dundee ndox ak tàndarma leen doon leen leen leen doon dundee loolu nag da nga koy gis ci Cheikh Mamoun radiallahu anhu euh, ni ngeen koy di ngeen ni koy ñeneen ñi di déggee nga xam ne tour bi macha allah rëy na tabegu ak ni ko yàlla mayoon wërsëg waaye loolu yëpp da ko doon jox yàlla des ak yàlla tabaraka wa taala noonu la daan toogee ci kër gi ñaari mali nag du nekk ci poos bi ah demal demal fële seet faatu foofu lu mu amee fii ana kii amee woon 10 000 francs bu ñu jëndee crédit yooyu yëpp sëñ Mamoun da ko daan ci mujj dundam ñun ñoom ñu fekkee loolu ñoom mbaas ma mbas mi xam xam leen ko waaw lu mu am lekk ko bu ñu indee mbur ak caaf da nga dem mu lekk waaw toppatoo leen ataaya ñu ataaya indi seetal dund boobu dund bu neex ba parce que dara sàccut ko dara këfur ko yàlla rek la la la moom moo ko këfoon moo tax ñooñu ñooy noppa noppalu alaa bi zikrillaahi tatma'innul quluub xol mënta dal lu may ci yàlla la mën a dalee waaye soo bëggee àddina da ngay sonn ci ay protocolaat ngay nekk di seet li ngay lekk ak looy naan ak nangam ak nangam ak looy solo bu nit ñi ñëwee doo ñëwee ree sax nangam ak di njàngal yu demee noonu am na benn sëriñ boo xam ne sama si sama sama maam laa mas a dégg mu wéetale boobu ndax daf daan toog ak benn ñu ñu ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne nit ñi dañ leen gis ne ñu ñàkk solo leen mu ñëw na ko ah yow ngay xalifa di toog ak ñu ñàkk solo ñii nii fekk beneen kër la bokk mu ne ko nii ngeen def nag ba jëleen seen sëriñ boobu moom moo ma nettali ci laa mi am ne heure boo xamee ne euh, toog na ci mbooloo ñu wax loo xam ne lu reelu la dafay dugg ci néegam ree ba kóol tànkam bi ba kontaan soo génn ci mbooloo mi da nga da toog këj loolu métti na dund boobu dund bu métti la waaye Cheikh Cheikh Mamoun insan basit waaw xale bu nekk mën naa wax ak yow xale bu nekk mën naa jëflanteek yow bu waree def dara sax ku nekk lay laaj xalaat ku nekk dina ko laaj xalaat toon kenn parce que xam ne ne euh, xalaat yi ak wax yi bàyyiwu ko ci nit ñi waaye pays bi mooy wax ci làmmiñu nit ñi moom pays bi lay déglu moo tax du gis xale du gis mag du gis ku ñàkk du gis ku ñàkk xam-xam léeg-léeg ñëpp lay wax mu seet la nga xam ne moom la xolam da nga ne jàpp mu def noonu radiyallahu anhu moo tax nag fu mu àdduwaan rek wax ju rafet lay lay wax wax ju mat lay wax moom Cheikh Mahamadul Mamoun radiyallahu anhu sifa googu nga xam ne melokaan yi nga xam ne mooy melokaan ak wilaaya nga xam ne da ngay am ixlaasa al ixlaas li waaxid al ahad da ngay sa jëfi mu ñeel yàlla tabaraka wa taala sa xaal yépp nga sellal ko mu ñeel yàlla tabaraka wa taala loolu yàlla mayoon na ko ci cër boo xam ne cër bu cër cër bu lëw la waaye euh, bokk na ci melokaani wuli wilaaya tamit salaamatu sadri mooy xol boo xam ne xol bu dégg nga mucc lay doon xol bu mucc ci bañ doomi aadama yi xol bu mucc ci añaan kañaan xol bu mucc ci man rek maa fi nekk bu dul man dégg da baaxut ak xol bu mucc ci di xool mbindeef fi yàlla yi bëti xeebel parce que am na ñoo xam ne yàlla daf leen nattu loolu loolu juddu dina ko def nit man maay doomi diw kon keneen man maa ko gën déedéet waaw boo ko defee rek yow dootoo doomi diw moomu waaw dootoo doomi diw moomu parce que amatoo jikkoom waaye melokaan bu ñàkk fayda rek nga amee waaye nit ku baax du xool doomi aadama di ko xeet doomi aadama dafa foor wala xat kërram naa bani aadama ndax nit mënoo koo gën ci nite li nga ko mën a gënee ci taqwallahi ci ragal yàlla nga ko mën a gënee gënee noo gën a ragalee yàlla noonu ngay gënee a ngay gënee kon fa yàlla nga mën a gënee waaye mënoo gënee mukk ci mbiri àddina yii nii moo xam alal la moo xam nangam la lu mu mën a doon waaye da ngay nekk nit ku baax wali yàlla dafay nekk salimu sadr ñépp lay yéene lu baax xolam bi dafay yaatu du am daxiina du am mbañeel dégg de ci doomi aadama yi du am xeebeel ci doomi aadama yi du yàqal kenn du yéene kenn dégg nga de lu bon te Cheikh Mamoun ku ko xam xam nga loolu dégg de ci moom waaw lu waaye am ci lu baax rek yéene na la su lu baax loolu loo am boo mën nga koo téye moom mu jël dégg de jox la moom radiallahu anhu loolu la meloon danaan wax ne bala maa noppalu man Mamoun ma am fi ay Mamoun yu bëree bëree bëri bëri ci sama jëfin at ci sama waxin kon kooku dégg nga de ku ku baax la woon mosoo koo gis tamit muy tiitaroon na man doomi Mawlana Cheikh Ibrahima la dafay nekk rek taalibe ci biir taalibe yi doomi bàyyi yépp nangul nañ ko loolu comme gis ci ñoom moo xam moo la mag wala yaa ko mag dina jug jox la ñaari loxo ndax mazhar bi muy xool ci yow moom mooy mazhar rek da nga de sama sëriñ laay nuyu ndax sama doomi sëriñ la doomi Cheikh Ibrahima Niass la radiyallahu da nga de anhu kon salaamatu sadri moo doon fooraayu Cheikh Mamoun Cheikh Mamoun ku yéene woon nit ñi dégg da lu baax la waaw ku amoon ñëwante la ci doomi aadama yi la man mas naa gis benn agenda am boo xam ne def ci doon ñaan yàlla tabaaraka wa taala mu ngi ñaan yàlla ba di ñaan yàlla yàlla may ko mu am wërsëg woo xam ne Medina fii nii kenn dootu joxe ci dépasse mu ngi ñaanal ñëpp ñu am waaye ku nekk sa dépasse moom moom boo xëyee dënga nga ne maamul mu ne mu jox la ko waaw waaye teg na ci nag maa ngi ñaanal ñëpp dégg nga am ba doyal waaye daal loolu bëgg naa yàlla may ma dégg nga de kàttan loolu noonu maa laa yumkinu kulluhu dégg nga laa yutraku dégg nga kulluhu loo xam ne mënoo def léppam doo bàyyi dégg nga doo ko bàyyi foog nga jéem ci moo tax am na jamono yàlla may ko fi xéewal mu commencé dégg nga loolu euh, ba ma ko gisee laa ne lii de ba mu ko ñaanee dégg nga yàgg na radiyallahu anhu waaye mu ngi ko doon appliqué Baye Mbaye Cissé hafizahullah moom la joxoon euh, xaalis boobu noonu ku nekk bés bu set am na ñoo xam ne dagaloon nañ leen dépasse man mii sax dinaa ci daan am 2500 te jamono jooju nag moom ndar neexutoon 2500 yi yu baax yu baax yu baax yu baax sax dégg nga ba biseen mu jox la ko radiyallahu anhu kon gis nga loolu rahma yërmaane shafaqa bëggal ñi dégg nga da lu baax radiyallahu anhu ci sifaat yu mag la ci sifaatul wali yàlla yi ndax kuy koo xam ne yàlla ci yàlla nga jeex kon foofu di nga am jikko yoo nuru yàlla ndax yàlla moom mooy rahim yàlla moom mooy rahmaan yàlla moom mooy raouf moom moo yërëm ay jaamam kon foofu nga am yërmaane googu doonu dégg ne ci ci ci ay jaamam euh, melokaani wali yàlla yi ba léegi tamit bokk na ci di oote jéeme ci lépp loo xam ne lu baax la Cheikh Mamadou heure bu nekk rek boo ko gisee mu yëngatu rek ma nga yëngatu ci loo xam ne dafay baax waaye jëme ko ci ñëpp ma nga yëngatu ci ñu jàngale téere ci jàngale jàngale baay ci conférence ya dégg nga ci gàmmu ya waaye ci nu ñu defee benn mu ëstasa boo xam ne mooy fondation boo xam ne dañ ciy dimbale da nga jaamu yàlla yi waaye oote ci politique boo xam ne duwut pour am poste duwut pour ñu jox ko ci xaalis waaye xaalisam la cay def ngir ñu mën a buur jëm ci liggéeyal suñu réew ci kaw njub ak ci maandute Cheikh Mamoun nekkoon na koo xam ne oote jëme ci foo ko fekk rek ma ngay oote jëme ci lu lu lu lu baax waaye bokk na ci melokaani wali yàlla yi mooy seen xol yi dafay aju ci yàlla seen xol yi daa iman ci yàlla lay aju moo tax duñ faale ku leen xas wala ku leen tagg te ku nekk xam na ne Cheikh loolu moom du wutal lu ko déranger moo daan wax ne man maay seni pays bi mooy maay mbaliti pays bi fu ñuy tuuree mbalit man na Mamoun ku am looy tuur ci lu bon rek ci wax ju bon man sànni ma ko waaw waaye pays bi na nga ciy wax lu dégg nga def lu rafet. ndax moom maa kaana yaxa kaana dégg nga de la euh, kaana dégg nga la laa yaxaafu fillaahi lawmata laa'imin ci bu fekkee ci lu aju ci xadra bi la soo ko buggee merloo rek tuddal bàyyi wala nga tuddal lu aju ci pay bi keroog ngay xam kan mooy dégg nga de Cheikh Mamoun waaw Abdoulaye xaw ma mu tawa boobu noonu nekkoon Kuwait nga xam ne loolu moo tax Oustaz Braham Diop bind téere boobu risaalati ilaa Kuwait Cheikh Mamoun moo dajeeg moom dégg de ci gannaaw bu xaja ci Abdoulaye ak euh, euh, Cheikh euh, kii Oustaz Barham Diop ak moom dajeeg moom ñu waxtaan ñu xamal ko kan mooy Baye guumi jaar fa noonu Baye bu mag boobu nekkoon Nigeria nga xam ne moom lu mu daan tiitaroo rek moom mooy ne boleke naa Baye ba kenn du du du du ko recevoir ci ñu mag ñu nekk ci xalij te Baye amutoon soxla ci xalij xalij ñoo soxla woon Baye waaw Baye moom nit ñi ñoo ko soxla waaye moom soxla wutoon dégg nga de ci kenn dégg de dara mu dem fa yàq deram ñu dajee rek ci ay kilifa yu ñu toog rek mu mu songu bàyyi commencé ni wax waaye keroog Cheikh Mamoun dafa dagg santé mu amul lu mu ko waxut ba mu fa jógee ko la bind ñaari lettre bii mu adressé ko bàyyi bii mu adressé ko Oustaz Braham Diop na ko jot na nag nga bind défendre dégg nga ne euh, ootey Mawlana Cheikh Ibrahima gi ni ndax yàq yàqkat yi dugg nañ ci xalis bi di yàq dégg nga ne turu turu Mawlana Cheikh Ibrahima wax Ibrahima Cheikh Ibrahima Mahmoud Diop na ko xul wa ruuxul ma ak waxal da nga ruuxul xudsi ngi ànd ak yow Barham Diop mu ne ma ñëw indil lettre bi bàyyi bàyyi na ko Maamun tamit ji bind na ma lettre waaye maa ngi lay wax rek ne la xul wa ruxul xursi maak waaw waaw te moom daf daan wax Alaaji Abdoulaye fii nettali na ne mu ne bàyyi moo leen daan wax ne leen de leen déglu Maamun ndax ay jamono yàlla dafay wax ci làmminam xelaatam dafay ànd ak dégg nga de yàlla tabaraka wa taala kon Cheikh Maamun radiyallahu anhu euh, ragalutoon ku ko xas ragalutoon ku ko tagg balaa nga ko xam mu defal la dara nga ñëw di ko tagg da ngay gis dafay rus a rus ba ñaq bëggul sax da nga da nga tudd ko lépp lu mu def ci lu baax da nga def fàtte na ko maam bas mi nettali naag bàyyi siidi yépp ne dañuy ànd ak moom ci oto rek kenn dab ko ñëw nuyu ko na ko xamama mu la la déedéet ah, yaa ma yóbbu woon màkka nangam nangam di ko fàttali sëñ Mamour sax da nga def fàtte na loolu lépp lu mu def ci lu baax radiallahu anhu da nga def euh, fa fàtte na ko bëggutoon ku ko tagg waaw bàyyi tuuti radiallahu anhu dinaa daan dégg muy wax mu ne sëñ Mamoun du jënd service maanaam lu mu lay jox du ne daf la koy jox pour bu la soxlaa liggéeyloo ci politique liggéeyloo la wala bu la soxlaa liggéeyloo la ci leneen da liggéeyloo la daf lay jox rek lillaahi tabaraka wa taala soxlawut ku ko tagg soxlawut ragalut tamit dégg nga ku ko xas waaw daf moom loo ko xas xas xas xas dégg nga loolu ndax doomu aadama yi ñoom bu ñu la déggut lu nekk mën nañ la koo adressé waaye ku jaxasoo moom bu jaxasoo yow dina xam dégg nga day am na waaye mu wax na man damaa amoon dama damaa defoon erreur bu mag dégg ci Mamoun ndax politique bi muy politique ak yu demee noonu demoon na ba jaxase sama ma foog ne daal kii bokkut dégg nga ci ci gaañ waaye daal mun ne dakaar laa ko fekk benn jamono mu fekk mu am jot euh, xaal muy waxtaan ci yàlla may dugg ci moom di ko gis ci nangam a nangam ci laa xam naka de naka de damaa defoon erreur bu mag a mag a mag dégg ci Cheikh Mamoun ma ne ko yow erreur bi nga def sax da nga xamoo ko Cheikh Mamoun boo boo jaxasoo ak moom danga fekk ci ci ci ci jaane bu lasaar kenn melul ni moom dégg nga ci ci ci lasaar lu nekk la xam radiyallahu anhu waaye noonu la amee xam noonu la amee dégg nga de wilaaya noonu la amee ñaan noonu la baaxee noonu la fonkee nit noonu la fonkee dégg nga de doomi doomi aadama kon euh, xolam bi dara nekku ci woon lu may yàlla tabaraka wa taala bu ko defee bokk na ci melokaani wali yàlla yi ba léegi moom mooy dëddu àddina ku nekk xam na ne Cheikh Mamoun ko dëddu woon àddina la ndax gaañi duñ bëgg àddina duñ dox jëm ci dégg nga àddina àddina dañ ko jàppee muy wasiila muy jumtukaay boo xam ne dañ ci amee ngërmaan ak yàlla tabaaraka wa taala moo tax dara du leen soxlaal walis ñu dégg nga ñi topp yàlla ak ñu am ngërmaan ak yàlla du alal du du jaax du daraja du dara waaw te xam nga doomu aadama ni ko yàlla bindee ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa wa tashibbu minhu isnataani alxirsu ala almaal wal xirsu ala al umri mu ne doomu aadama moom dina dem ba màgget waaye ñaari yoom boo leen fekk mu ngi nekk ndaw ci ndaw ndaw la ci xolam mooy bëgg xalal ak bëgg bëgg fee yàgg waaw lu at bëri bëri bëri bëri doomu aadama moom fii lay nekk fii dafay bëgg yàgg fii nii waaye tamit dafay nekk koo xam ne ku bëgg alal la moo tax ne boo bëggee àgg ci xaqiqatu zuhdi te moom mooy dëddu àddina tabaa eh, dëddu àddina dafa war nga tàggat sa bakkan sellal sa bakkan waaye tàggat tàggat bakkan bi ci suufeel sa bopp danga am tawaadu waaye tamit mën a muñ muñ ñàkk muñ da nga ne nit ñi jubluloo muñ tamit da nattu yi ak waxi doomu yi su boobaa nag ngay mën a nekk koo xam ne ku dëddu àddina ngay doon waaye moom jekk woon na àddina waaye Maamun radiyallahu anhu jëmutoon jëm ci dégg de àddina àddina ci cati loxo bi la nekkoon moo tax lu nekk mën na koo maye radiyallahu anhu waaw day joxe xari tabaski ba këram ñu am duñu am lu ñu luñ ke bu paree ci guddi gi mu naan waaw lu fa nekk gars yi amuma xar am na benn at sax ñenn ci njaboot gi ñoo dem utal ko xar mu mag da nga indil ko ko naka da ajaa fàdde moom it amul xar ñu demaa dem lijjanti ay xar da nga de jo jox ko njaboot gi ci kër gi kii moo dëdd woon àddina xam nga nag da nga gis koo xam ne boo ko gisee ci yërëm yi ak ñaan dafa bëgg àddina dafa dëddu àddina ak yoon fekk ñàkk moo tax mu bëgg mu dëddu àddina xam nga man boo boo ma fekkee fële ca daal ji nga ànd kii dafa dafa dafa dëddu àddina ah mu ci àll bi te fekk ñàkk rek dafa ñàkk rek waaye nit ku dëddu àddina yaa ngi koy gën a xamee ci bu demee ba jekku ba jekku àddina naka lay mel waaw moo tax li wala fi di wax ne ah, benn waay da day kenn loon ci bàyyi bàyyi Cheikh Bukaar yi buñ ko waxaan na ko diw dafa baax mu leen ba am na dara bu buñ ñu ne ko ah déedéet dara mu ne dee kooku tagg tagg ko tagg ko teel na kooku amagut jikko ku amagut dara amagut jikko waaye doomu aadama moom bu amee bu amee xaalis si ngay xam moom mooy kan waaye Cheikh Mamoun ñëpp xam ne ne li daan wàcc ci loxoom ci alal dëgg la lu bari la koo xam ne ay milliards dafay daje ci sa loxo ànd ak loolu dégg nga doo gis benn fax benn benn puukare boo xam ne dina ko puukare woo doo doo gis xayaatu sax maanaam dund boo xam ne dund ak euh, yàq la ci dëngale ci dundam waaye Mamoun lan moo koy kontaanloo xaalis bi tasaare naa ko jox ko jaamu yàlla yi waaw tasaare naa ko jox ko jaamu yàlla loolu moom moo koy kontaan loo jël naa ñi ñu yóbbu leen dégg nga dañuy aj def na ko ay yoonu yoon ba yàlla defal ko tawfiq boo xam ne ba muy génn àddina ay téeméer ña nga ca Kaaba ga moom moo leen yóbbu radiyallahu anhu kon ku dëddu àddina la moo tax gaa yi dañuy wax naan ki dëddu àddina dëgg-dëgg mooy Abdul Aziz dégg nga euh, buur bu mag xamis xamis xulafaa rachidin Omar bun Abdul Aziz nga xam ne buur la woon waaye ku dëddoon àddina la xisaam yaatu na xam naa ne da nga ne xaju xaju fi waaye naa kulli xaalin mbooleem xisaal yi nga xam ne jikko yoo xam ne buñ ko buñ ko buñ ko seetantalee ci melokaan boo xam ne melokaan ay jikko la yoo xam ne jikko wilaaya la da koy fekk ci cheikh Mouhamadul Maamoun radiyallahu anhu baax lool baax ci njabootam dégg nga toppatoo dégg nga njabootam. waaye tamit yar leen ci góor góorgóorlu di leen daan wax bu nekk bu ngeen foogee ne maamul moom dina fi bàyyi lu ngeen a doon perte ñeel na leen boo ngeen góorgóorlu man maamul duma fi duma fi bàyyi dara waaw lépp rek dégg da koy jox yàlla tabaaraka wa waaye bàyyi na leen yàlla bàyyi na leen jikko yu tedd alhamdulilahi rabbil alamin euh, ñoom alhamdulilah xayrul xalaf leen ci njiital seen mag Cheikh Ibrahima yàlla yàlla gën koo dégg nga dëgëral bu ko defee nag jikko yi tedd yi nga xam ne moom leen tagg yoon yonent bi sallallahu alayhi xam ne ku mu nekk ci yow rek ku baax nga dafay feeñ ci xisaay sufaanatu bintu xaatim ataayi sufaana moomu doomu xaatimu taay la xaatimu taay ku tabe woon la dañ koy dar bu masal ci a tabe ba yonent bi sallallahu alayhi Ali ci benn sariya ci gaa ak juróom-ñeenteeli at ci gàddaay bi ndax boobu moo ñoom ñoo dese woon benn xërëm euh, boo xam ne sufru lañ ko doon wax moom ñoom moom leen doon jaamu mu yónni Seydina Ali ngir mu toj di nga def xërëm yooyu noonu ubbi dëkk boobu noonu samp fa drapeau l'islam mu Seydina Ali ànd ak ña téeméeri góor ak juróom fukk ubbi dëkk boobu ba mu ko ubbee ñu jàpp ci ay jar-jar bokkoon na ci ñi jàpp sufaanatu bint xaatimu eh, taax yi nga xam ne eh, ci sang yi la bokkoon ba mu ñëwee nag ndaw si ku amoon personnalité la wax ne ku tabe woon la bàyyam lu mu ko joxaan moom itam daf koy joxe bàyyam gënu ko woon a tabe te dégg na xibaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ak yonent bi ci bunt boo xam ne dina xam ndax kii ak yonent la wala nit àddina la yonent bi romb ko rek moom ku amoon fasaaxa la mu ne ko eh, fa inni bintu sayyidihim na nga xam ne man doomi dégg nga de sang dëkk bi laa ndax xaatimu taayi mooy ko xam ne moo ma moom moo ma jur inna abi kaana yutimu taama sama baay ku baax la woon daf daan layale ñam daf daan joxe ñam da daan ganale gan yi wa yaxfasu jiwaara daf daan sàmm kóllëreeg dëkkandoor waaye wa yara zimaara daf daan sàmm tamit dégg nga de kóllëre wa yafukkul aani daf daan xob bi eh, jafe-jafe koo xam ne ku sonn la ku nekk ci ay jaaxle boo ñëwee mu dindi la seen nga def sa jaaxle yu noonu waaye wa yushbiul jaa'i ku xiif boo ñëwee mu jox la nga lekk ba suur wa yaksul uryaan koo xam ne dafa rafle mu jox la dégg nga mu hodd la waaye walam yarud walam yarud taaliban xaajatan qat masta delloo soxlaay nit koo xam ne ñëw na di ko indil dégg nga soxna mu ne ko man maay bintu xaa xaatimu taay waaye li ko indi salaa sallam wax dafa wax na ko ne haadihi makaarimul axlaaqi xaqan lii tedd nga tedd ngaay jikko la walaw kaana abuka musliman la tarxamtu alayhi xallu anha bu fekkoon ne sa bàyyi doon sa bàyyi jullit la woon li ko woon ma wax ne ma ma ma ñaanal ko yërmaane ak yàlla tabaaraka wa taala waaye jikko yi nii jikkoog dégg nga jullit la xaqan jikko yi nag jikkoog jullit xaqan la jullit boo xam ne ragal na yàlla jullit boo xam ne bëgg yàlla mu ngi ci xolam jullit boo xam ne euh, xàmmee na ràññee na yàlla tabaaraka wa jikko yi dafay nekk ci moom dafay nekk ku tabe kon xoolal jikko yi ñu tudd yépp mu ngi woon ci Cheikh Mamoun danaan leele ñam loolu moom dégg nga ne ñëpp xam neen ko bu gàmmu jotee nagam yaa ngi dem fu nekk bu tabaski jotee ma sëñ Mamoun bu jaaxlee rek li koy jaaxal lenn la moom mooy amul lu mu jox dégg nga jaamu yàlla yi da ngay dégg rek heure bu nekk mu ngi jàmbat eh jaamu yàlla yi eh tabaski bi jege seen tabaski bi jege na bu gàmm dégg nga jotee tamit dégg nga de ka kazalika ba ci gàmm gu mujj gi bi mu fekkee mooy mille 2000 2010 ba 2011 lu ne rey na ko ci gannaaw bu mu joxee ay nag ba pare togg ñu koy tasaare di ko jox dégg nga de jaamu jaamu yàlla yi la bëri na ku jaaxle boo ñëwee mu faj seen jaaxle waaw danaan dañ daan toog rek benn patron boo xam ne boo gisee otom bi doo ko ñemee laal wàcc ñëw ci Cheikh Mamoun bu ñëwee naka de soxlaam lay wax waaw mooy ñi nga xam ne yàlla da leen teral ba pare ñu nekk ci ay problème waaye am ay problème yi banque wala yoo xam ne mën nga cee am gàcca waaye boo duggee rek da mu demu fajaajoom ba bés sax waxoon nañu ci asalam ne leen eh oto bu rafet mu ñëw fii nii soxla rek la may wax maa man maa mun bëri na ñoo xam ne bu ñu tëjoo tëjoo man ñu mën a doon moo xam borom alal la wala du borom alal da nga soxla rek la may wax waaye bu soxla ñëwaa rek da nga mu faj ko te du ci boole boole wax am na koo xam ne bu la fajalee aajo adduna bi yëpp dëkk dégg ko soo jaaxlee sax ñëw wax ko sa aajo non seulement du la ko fajal ba pare waaye dina tasaare ah diw day dem ki barki démb ñëwoon na di ma fi leb leb leb nit du gàcca doomu aadama dafay nekk ci xat-xat dafa soxla ku ko dimbale boo ko dimbalee yàlla dina la dina la dina la fay waaye Cheikh Mamoun doo ko dégg mukk mu defal nit lu baax ba pare ñaaxe ko ko mukk da koy fàtte radiyallahu anhu kon jikko yi tedd yooyu nga xam ne tabe tabe ak tabel ak tab la woon moom Cheikh Mamoun lu mu amee dégg nga joxe ko te tabe yombut tabe yombut joxe moom bala faw mu nekk mu xeex ak bakkan bii nii waaw moom nawitoon ni ñett gaa yooyu am na ñett gaa yoo xam ne dañu la ñuy nettali ci taarix ne kenn gënu leen woon nay dañu ñi ñu dëkk ci dëkk bi am alal lool te duñ dimbale kenn nit ñi di leen xas loolu naqadi leen ñoom ñett ñu dajee ne waaw li ñu ñii di wax nag moom nañ ko jéem a dindi waaw neen fexe nag ñu dimbale miskin yi benn waaye kenn kii ne man def naa benn daayira mu def benn cercle ne sama xaalis daal dinaa ko kool ci kaw lu wàcc ci biir cercle bi miskin yi dégg ñoo ko moom waaye loo xam ne wàccul ci ko ci biir cercle ci biir cercle bi su boobaa loolu sama alal la xaalis bi mu koy sànnee côté bale waaw dara wàccut ci biir keneen ki moom rëdd benn rëdd waaw man moom dinaa sànni lépp loo xam ne ñëw na ci ndeyjoor bi ndeyjoor ak euh, euh, rëdd bii miskin yee ko moom waaye lépp loo xam ne tamit euh, ñëwee na wàllu càmmooñ sama alal la moom muy sànni ci wàllu wàllu càmmooñam dara wàccut ci wàllu ndeyjooram keneen kaa gën a bon nag moom keneen ki ne man nag moom dinaa kóol ci kaw lu aju ca kaw rek miskin yaa ko moom waaye lu wàcc maa ko moom <laughs> ñooñu xam ñooñu ñooñu ñëw duy Cheikh Mamoun kon daal euh, damay bañ a ndax kilifa yi seen toogaay na seen wax moo moo ëpp sama wax ñoo ma ma gën a xam Cheikh Mamoun ñoo fi nekk ñii ñoo ko magoon ci ayaat ñu ànd ànd bu rafet ñii ay rakkam leen lépp dundam dégg nga xam leen ko ñu déglu ci ñoom ay nukat moo gën man mi nga xam ne dégg nga xaw ma xaw ma ci moom lu bëri xanaa njaboot gi rek ñoo ma sant may tàmbalee waxtaan wi ba gan yi ñëw ba ñu mbooloo mi dajee ñu mën a wax loo xam ne lu jëriñ jaamu yàlla yi la lépp loo xam ne nekk na ci njuumte nag yàlla ñu ko yàlla jéggal te bari na ay njuumte waaye lu ci nekk ci sawaab ñu ngi ñaan yàlla ñu jëriñoo ko waaye du ma tëj mukk lu may di leen gërëm njabootu cheikh Mouhamadou Mamoun bi wax dëgg yàlla bàyyi na fi zuriyatan saaliha taal ay doom yoo xam ne ñëpp ay taalibe leen Cheikh Ibrahima Mamoun mii man fekke naa bàyyam di wax ne Baye Mamoun gënuma ko bëgg bàyyi loolu man fekkee naa ko alhamdulilah fekkee naa te muy wax ne ma Baye Mamoun gënuma koo tabe waaw te loolu nekk ci moom mu ngi ci ay ay rakam te kenn déggalu leen benn bir wi fonk neen doomi aadama fonk neen njabooti baay gi fonk neen dégg nga de taalibe yi taalibe leen def seen bopp comme nag comme ñu ngi jaar ci yoon wi nga xam ne fa la ji jaaroon ñu ngi ñaan cëri waay jooju di Cheikh Mamadou Mamoun yàlla ko yàlla def ci ñoom yàlla saxal ko ci ñoom maa ngi gërëm maa ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu